salaamaaleykum euh, mbokk wasaare ñëw si ñu ngi ak Thierno tey ñu gis nga ñëw fii si euh, événement bi la moo la moo la moo sama tànk mooy ñëw euh, soutenir un frère un ami koo xamante ne c'est un frère un compagnon de longue at longues années yoo xamante ne ñoo nekkandoo woon biir parti réew mi mu doon koo xamante ne taxawaayam si askan bi taxawaayam. Euh, pour Sénégal kenn du ko naatable euh, moo tax tey su dee lii am na mu wooñu ñu si euh, invité ñu si dañuy am mbégte lool lool lool teew fi parce que nag Abdourahmane Diouf c'est une chance pour le Sénégal nit la ko xamante ne taxawaayam ñëpp xam nañ ko am na fit bu war am na taxawaay bu mat am na bëgg-bëgg pour réewam am na aussi vision bu leer pour réew am na cohérence lu muy def donc ku mel noonu su taxawee ne damay damay créer parti politique woo Sénégalais yi je pense que ne ñun dañ ci war am fierté ñun ñi nga xam ne ñu bëgg Sénégal parce que jàpp nañ ñu mel noonu dañ leen war a encouragé dañ leen war a félicité donc dañu ñëw taxawu ko encouragé ko félicité ko ñaanal ko li mu sumb yàlla jàppale ko si. waaw gis nañ euh, sa nga génn yeewu askan wi euh, fan yi euh, gis nañu yow tamit président nga loolu si sphère politique bi Thiès ngay déposé si candidature wala. non tey moom tey bésu Abdourahmane <laughs> bésu la docteur Abdourahmane Diouf. mais comme ni ñu ko waxee moom rek lu si mënti am dinañ ko leeral incha allah. mais 2024 pare nga pour. Euh, waaw loolu teel na 2024 sori na de. mais sori na non de façon lu si lu si mënti am dinañ ko dinañ ko leeral incha allah.